jërë ngeen jëf waa ji ñu suli woon ca kaw laxataal ko ña ko defoon coow a ngi leen di bëgg a topp ki ñu taaloon ak ba ñu koy taal photo yooyee la libération xëy indi ci xëtamu njëkk boole ko kit bind ne bi enquêteurs yi xoolee vidéo yi ñu partagé ci réseaux sociaux yi exploité ko am na ñu ca xàmmee am na ñeent ci ñoom ñuy jàpp dem ki ñu ne moosoo ki mbiri nag di instigateur ba identifié nañu ko waaye gisee su ko ndax dafa daw fa mu xewee di ca leew na ña seen xalifa ba di sëriñ Cheikh Ahmed na ab ki démb ba di ca ñaawlu li xew le quotidien dañu wax ne wax nañu ca communiqué ba ne li xew ca leew naña ñi ko ñaawlu bare nañu te yamu rekk ci réew mi ne ba ca bitim réew ña ko fay ñaawlu li ñaaw te jara ñaawlu dëgg l'observateur mi ngi mel ku naan mooy jëfi soowaas yi ñuy gis ci réew mi jamono ji sulli ab néew taal ko baa nga gis ci réew mi ku nekk ci jafe-jafe moromam yéene ko ko ba di ci bég loole moo ci Sénégal journal lay fa nañu suñu réew di Sénégal fi mu taxaw jamono ji bu fa jugul du baax ndax nit ñi léegi fayal seen bopp ak fajal seen bopp dale na yomb lool Ousmane Sonko ay mbiram bari na lool ci yéene yi tey sisir gi mu sisir cour de justice bu CEDEAO ngir mu wax ci ay mbiram Walf Quotidien li mu ci gis mooy Sonko face au mur Sud Quotidien nañu tey ji ci talaata ji ci la cour de justice Macky Sall ak nguuram cour de justice bu CEDEAO yàgg na leen a joxi décision yàgg leen a sant ñu bañ ne duñ ko def recours yi Ousmane Sonko yóbbu ca CEDEAO léegi ko nee nañu tey jii ci la ci cour bi war a wax waaye agence judiciaire de l'état bi li mu bëgg mooy ñu reporter audience bi Vox Populi ñu report googee agence judiciaire de l'état bi bëgg avocat yi Ousmane Sonko nee nañu ñoo ko bañ ba tëdd ca naaj wa kenn du ko fi reporter cour de justice bu a waxte yii ci mbiri Ousmane Sonko journal bés bi le jour mi koy wax nee nañu benn bi mi ngi jëm ci raje gi ñu ko raje moom Ousmane Sonko ci liste électorale yi ñaareel bi jëmit ci tas gi ñu tas partem bii di Pastef avocat yi demoon ca Sénat commission électorale nationale autonome doon sàkku ci moom wax waa direction générale des élections ñu jox Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am journal bi le jour nañu Sénat joxe na tontom démb la ko jox avocat yi Ousmane Sonko yi candidat ci élection présidentielle yi ñu bari ci ñoom xëy nañu séddoo journal yi tey Aliou Mamadou Dia bu pur ci l'Observateur Mamadou Lamine Diallo bu mouvement tekki ci la Sénégal Thierno Alassane Sall bu République des valeurs ci journal Le Mandat ci xët mu njëkku ministre Abdou Karim Fofana porte-parole gouvernement bi ma nga fa yéenekaay bi bind ne Abdou Karim Fofana corrigé na Boubacar mi jibaloon xalaatub ñu reporter élection présidentielle yi ndax dafa jàpp ne du yéenekaay bi tërale mi jibaloon xalaatub ñu reporté élection yi Les Échos ne nañu fa ma taxawoon fa la taxaw ba tey jàpp na ne ak ni mbir yi tëddee ci réew mi ay élection yu jaar ci yoon mënu fay am ñi am doole ci wutum parrainage le mandat ne nañu mooy waa gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany dajale nañu lu toll ci 8300 ba tey ci diggante Notto Diobass Ndiireen Anen Toubatoul Thiénaba Fandène ak Pout point actu mel ne ku naan ñu waa Benno Bokk Yaakaar it a coordonnateur pôle parrainage bu Benno Bokk moom Abdoulaye Diagne direct news mi ngi ñuy xibaar ne ma nga woon ca week-end bii ci diwaanu Louga doon fa nangu ay parrainage yu ko fa Modou Diagne Fada doon jox mu tolloon ci 54 087 parrainage bi nañu loolee bu fekkee 68 yi ko borom SDD yoonu naataange Souleymane Ndiaye jox dafay doon signature parrainage yu coordonnateur pôle parrainage bu Benno Bokk Yaakaar bi encaissé Bounama Sall délégué régional bu Thiès point actu mi ngi ñuy wax ne Mamadou Diagne Simbeng directeur général jébbal na ko parrainage yu toll ci sept mille six cent cinquante douze migrants di fukki migrants ak ñaar yu jëloon gaal doon bëkk ngir dem Espagne te far mujjee ci fu doy waar ñoo ngi ci sursuwa ubbil yéenekaay bi fukki migrants ak ñaar yu dëkk ca baasul ga ca Fatick ñoo jëloon gaal jële woon ko ca Kafountine ñoo faatu ci géej gi juróom-ñett ci ñoom ca baasul ga ca Fatick fa la ñu dëkk ñeent yee ca île bu jogaan ci ñi ci faatu sursuwa nee nañ am na ca benn femme bu àndoon ak doomam jël gaal ngir bëggoon a fekki jëkkëram Espagne bi ñu defee ci géej gi juróom-benni fan ci la ñu panne doon dundee jeex ñu faatu